mooy yuuxu bu ñu yuuxoo euh, le recteur euh, Amadou Ali Mbaye bon euh, mbirum université moo demee noonu université moo demee noonu mais gis na Jean-Luc Mélenchon waxam du waxam lañu tàcc moom àndam ba mu ànd ci projet wu Pastef peut-être xeex ànd ak ñoom moom lañu gën a tàcc mais bu dee kàddu Jean-Luc Mélenchon kese naan noonu mbirum ay ñaari tour ak yooyu dañu ko war a jël teg ko na leen mais dañu war a gëm ni mbëggeel amul ay góor laak jigéen laak yu mel noonu loolu étudiants yi tàccuwuñu ko bu dee loolu la ñu tàccu étudiants yi dégguñu français kon. ñaare mën a ne uh-huh. bu dee moom lañ tàccu. Uh-huh. ci wax wax boobu. Uh-huh. kon dégguñu tubaab. te la wax dégguñu ko. monsieur Louis ban lecture ngay def par